diggante prisonniers yi nga xam ne rek ñoo doon defante ak ñii di gardien yi yéenekaay bi ne fasaa si jëwriñ ji ñu dénk wàllu yoon nag dem na foofee ca liberté 6 ngir fay taal wa enquête yëglekaay moom itam nag àddu jëmale ci li nga xam ne rek moo xewoon démb ca prison bu camp pénal ak li waral dëgg-dëgg nag xeexoo boobee doxoon ci diggante garde pénitentiaire yi ak ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di prisonniers yi yéenekaay bi ne lay xew ca chambre 8 te nga xam ne rek wane nañ ko ci tiktok bi ci guddik tabaski nag bokk na ci li waral ñu bëggoon a amal ak saytu ñeel boobee sànq kandaare ne lu ñu mel duñ ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg lu jëmit ci grâce présidentielle bi nag doon na loo xam ne rek yëkkati na xolub yenn ci ay prisonnier bés bi le la ndax nag dañoo gis ab yamba xam ne rek mi ngi jaaba foofee ca chambre huit lu ñu mel nag moo sabab garde pénitentiaire yi nag taxaw bëggoon a amal ak saytu waaye nag ci ay coowoo ca la mujjee ñu daal di lépp loo xam ne rek moo di caméra de surveillance yi daal di bi nag ña xam ne ne prisonniers yi nga xam ne rek ñoo yeewoo ca chambre huit ñoo daal di lànk nag ne nangu mukk ñu daal saytu li nga xam ne rek moo di barab boobee ñu leen di denc jamono ji nag ab enquête daañu ko ubbi bu ñu sukkandikoo ci administration bi ngir xam ana fu téléphone yooyee nga xam ne rek ñoo filmé boobee mutinerie daal jaar ba dugg ci biir prison bi source a daal di àddu jëmale nag ci li nga xam ne moo xew dëggantaan ba waral coow li daal di jolli foofee ca biir camp pénal yéenekaay bi ne ca chambre huit nag foofee la ñu nemmeeku ab drogue boo xam ne rek moo fa bi ñu tegee loxo ki nga xam ne rek moom moo ko yore woon ci lañ daal di xam ne ni nag faaw ñu daal di saytu boobee chambre ginnaaw gi nag ci la prisonniers yi daal di bañ ñeneeni prisonniers daal di leen di fekk si nag ànd ak ñoom jàppale leen ba mu daal di jur defante boobee dox ci diggante prisonniers yi ak ñii di gardien yi waaye laaj bi nga xam ne rek moom la yëglekaay bi samp mooy ana fi drogue boobee bàyyee ko ba mën a dugg ci biir prison bi yër leen boobee yëglekaay enquête yëglekaay moom itam lépp mi ngi bàyyeekoo ca chambre wi Walf Quotidien lu mu ci mënti doon daal démb tàngoon ci ay détenu nag ñu daal di yor ay téléphone portable libération ne mbir yi daal ba mu tàmbalee nag ci la jëwriñ ju ñu dénk wàllu yoon dem ca barab boobee ngir dàkkal coow li fi mu toll nii nag direction bu administration pénitentiaire bi nag ña ngay joxe seen version ci biir yëglekaay bi di Vox Populi ña ngay xam ne ni daal faaw rek ñu defub enquête ngir xam ana fu téléphone yi nga xam ne rek moo doon filmer boobee jàppante bàyyeekoo amul kenn ku ci jëlee ay gaañu gaañu mbaa mu ñàkk ca bakkanam waaye nag nañu jàpp ne pensionnaires yi nga xam ne rek ñoo nekkee ca chambre huit nag ñoo daal di indi coow li ndax bañ ñu daal di dugg ci seen barab boobee ngir saytu ko addu ba tey jëmale ci leneen loo xam ne rek yéenekaay yi dellu siwaat nañ ci niki tey jii bokk na ci FMI mi nga xam ne rek mi ngi doon amal ab càmbar jëm ci koomuk Sénégal ngay xam ne ni ab croissance bu toll ci 10 pour cent mën nañ ko am ci atum 2025 waaye nag ma ngay xam ne ni daañu amuk wàññeeku gu toll ci 3 virgule 9 pour cent ci atum ren ji 2 pour cent ci atum 2025 bii di Vox Populi ne résultat yi nga xam ne rek moo tukkee ci programme boobee nga xam ne rek Sénégal doon na ko doxal ci ndimbalu daanaka la ca tukkee nag daal mucc ayib donte ne ay fitna juddu woon na ci réewu Sénégal ci jamonoy élection présidentielle yi ba juróoloon Sénégal ay jafe-jafe yu jéggi dayoo yéenekaay bi di réew mi quotidien ne fi mu toll nii nag ñoom waa FMI nag ña ngay sàkku ci nguurug Sénégal ngir mu daal di yokk nag lépp loo xam ne rek moo di dépense sociale yi ngir mu mën a dimbali ménagères yi nga xam ne rek seen loxo jotul ci seen ginnaaw yéenekaay bi ne ñoom waa FMI nag ña nga doon càmbar programme économique ak financier bu Sénégal ca lañ xam leen ne Sénégal dana jot lu toll ci deux cent trente milliards fii ak diggu weeru juillet février ci wàllu tàggat yaram stade yëglekaay addu jëmale ci Copa América bi nag ñeenteelub édition bi nag yéenekaay bi ne daañu ko lancé niki tey jii ci ngoon Argentine bu Messi ak Brésil bu Muniquis ñoom jamono ji nag ñoom ñooy favori réew mi sport addu jëmale ci wàllu mercato bi di jënd meeg njaay mi yéenekaay bi ne waa Fenerbahçe jamono ji nag ña ngay bàyyi xel bu baax a baax kii di Sadio foofee ca Al Nassr sunu làmb xëyee niki tey Gris Bordeaux